Euh, Amadou Ba qui rejoint Diomaye. Tous ceux qui vont rejoindre Diomaye ne contrôleront rien au Sénégal. Il y aura une nouvelle opposition que jamais le Sénégal n'a connue. si toutefois Amadou rejoindrait Diomaye. Amadou Ba bu jógoon tey rejoindre Tay Diomaye. oui am na opposition boo xam ne kenn mosu calculer Sénégal. Mm. te man ci biir laay bokk man. jàppatal beneen wax ma wax la ko Macky Sall bu ñëwee taxaw ci gouvernement bi di leen feeñal ay ay daanu na ci politique peut-être mu def ko ci ay pion mais bu ko taxawee représenté feeñal ko day daanu. man du ma conseillé même bu ko joomaay préparé le pour deux mille vingt neuf il gagnera pas. li mu mën a def préparé kii Macky. Macky laa wax. dama la dama la wax ñaari mbir. ñaar ñooy xeex ba ñoom ñu daanandoo ci benn gouvernement joomaay ñëw jël mais joomaay ci consentement ban la jaar pour nekk président tey nga toog benn Amadou Ba ñu naan day waaj a dugg fii ak am na ko fa jógee ñëw seet si ko. jàppal ci compromis politique laa lay wax tey ñu war a gis benn benn Macky Sall aussi ñu koy war a gis mu ngi nekkaat ñaar ñu perte ci ginnaaw politique ñi gañe leen ñu gisaat ñaar ñu di xëccoo ñi mu nekk conflit d'intérêt ñoom ñëpp dañuy perte. léegi man damay poser question maanaam quand on veut négocier. kan mooy kan moo bëgg négocier. mais négocier. bu ko defee politique d'abord ki nekk moo ko mën a def. ki nekk ci. posture bu. moko meuna def bu compliqué. bu compliqué moo ko mën dem vers une négociation parce que amna lu mu bëgg parce que bien vrai que mu ngi ci opposition mais mu ngi na tek di organiser ay mbiram di doxal lan la. Pape Alé bëgg wala lan la jomay bëgg wala lan la Sonko bëgg ci Amadou Ba ba wara mëna yoni Pape Alé mu dem fofu et puis euh, le gars qu'on dit être en disgrâce du Benno ñu oyofal ko mom la doon bëgg def tableau peindre tableau mu ñu oyofal ko sofal ko amul nangam ak nangam ak nangam kooku tay pourquoi on a senti le besoin d'aller vers lui c'est parce que en réalité il tient beaucoup de choses dans paire te APR bi nga xamanteni ak Benno Bokk Yaakaar bi mais mu ngi dem en vriant ci ci ci nu golo xam boté do mom ca lañ toll té lool nak ñom tabax bobu nonu ci observateurs enfin ci man je veux dire en tant qu'observateur c'est-à-dire que Amadou Ba gagnerait plus à rester dans l'opposition ba pare construire une grande coalition pour aller vers les local. maintenant s'il faut se battre avec Sonko à l'Assemblée avec ses députés qui qui sont favorables il faut le faire parce que c'est de la politique. Et, tu espères que ça ça se fera jamais. Parce que présentement, les gars disent Non, en fait, c'est ce que je lui conseille, je dis. Alors, Libre à lui de. Voilà. Je s'il te plaît. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y, c'est bon. Euh, Fatim, nous avons une question de guerpissement. Euh, le maire de euh, Dakar Plateau, donc, a fait une sortie de Warné, de faire jusqu'au bout de sa logique par rapport à l'opération. Même si la tension vive entre agents municipaux et les marchands ambulants waaw mais Anna je crois que bu xaw na ko xole tuuti sànq bi muy wax ah, ci loolu parce que bu e, waxul woon il va aller jusqu'au bout sax loolu moy wax da fay jël responsabilité rek baña dégager responsabilité euh, mi ci diko tek ci ñeneen parce que li tax loolu nit yi di ci bàyyi xel barki demb dafa am ñu demoon euh, Colobane Euh, bi ñu demee Colobane au ñu jël seeni responsabilité xamale ne defar dëkk bi moo leen tax a jóg dañu jël am ñuñ koy jiiñ vidéo bi mi ngi fi Abbas bi mu leen dina xam ngeen ñan ñoo ko def ne bokkuñu ci ñun xam nga yan maire la loolu c'est-à-dire que ñoom ñoo ngi déchargé wu moo ngi am ku muy jiiñ ne moo def loolu ah, ah, ah, ñu ñëwaat euh, PM ñëw ne man dama toog président woo ma di ma laaj gis nga circulaire bu fe génn ci déguerpissement bi ma ne ko ñoo ko du yëgandoo ñu dem de l'autre côté ñu génnee circulaire bob xamalé ne ministère de l'intérieur la jóge donc yoy non yépp su dajaloyé da ngay xalaat ba xam question bi njëkk a ñëw mooy ndax ñun am nañ ay gouvernants am nañ ñu ñuy yilif am nañ ñu ñu toppatoo parce que bu fekkee circulaire day génn ku nekk dina yow ki nga xamné ne yaa kilifa gi jiite nga ne yëgoo ko chef du gouvernement loolu c'est grave kon ça dit que ku mu neex nga wax la la neex jël décision fam la neexee génnee ko au nom du gouvernement té lool c'est très grave pour le pays. Mhm. amatuñu ñu ñu jitt légui nak Alioune ndoy limi wax nono. c'est très bien noonu la njiit di mel da ngay jël sa responsabilité suñ ko mhm. su ko jaree bu nekké bakkan da ci des sax des mais nga jël sa responsabilité nga assumer ko. Mhm. il faut savoir assumer ses responsabilités té lool la def té lool la mëna def circulaire bu génn bu le conseil des ministres lañ ko waxee buñ ko fa waxee buñ ko fa waxul circulaire ba ma nga ministre de l'intérieur mu adressé au gouverneur les gouverneurs dem ci préfet les préfets de wàcc ci donc bu ñu ko jëlee da yoon dafa topp hiérarchie mm-hmm. bien vrai que àndul ak ñoom mais ñoom démantèlement de l'état la les mairies donc bu ñu leen indilee kayit ne leen def leen lii bu mbir moo moomu pour ñu arrêter loolu ñuy def ñaar mooy mën a am lañ leen sant mët wala bu mëtulee ñu yónneewaat kayit comme nañ ko yónnee woon ci début ba nee leen ñoo leen ko santoon arrêté leen bu boobaa ñu arrêté ko mais man tant que jotuma kayit gi may arrêté loolu la ma commencé. la ma commencé même soo taxawee di may ne arrêté ko duma ko arrêté parce que kayit laa jotoon commencé ko ci kayit mooy tax ma arrêté ko wala fi ñu ma yónni woon ma yegg fa loolu mooy dëgg léegi nag ah, ah, ah, marchand ambulant yeeg yooyu noonu yëpp. li ma waxoon démb da moom laay waxaat aana am na ñoo xamante dinañ ma wax ne ay état d'âme la ak ay émotion genre bu camara bi mais amul problème dafa am yoo xamante ne ni mbir à chaque fois que def da ngay xol fa ngay ak famu yegg problème bi du dañu bëgg il faut ñu il faut ñu il faut ñu dëgeural il faut ñu mettil loolu yëpp dëgg la mm-hmm. mais fa ngay dëgeural ak mettil da ngay réalité ya mu nga andax moom nañu bàyyi di wax pays émergent lañ pays en voie de développement loolu su ma amul lu may risque damay wax na sant la dafa am yoo xamante ñu baal ma mënul nekk pays pauvre lañu dañoo pauvre ba wow kooku yoruñu yoruñu. ñoo raw dukkure ba yàqu dukkure sax moo ñu tane réew mi yoruñu léegi boo yorul da ngay xam sa bopp loolu mooy dëgg ay gëmmal dóor ñu defar dëkk bi dëgg la dëkk bi boo ko bëgg defar da ngay gëmm dóor mais booy gëmm dóor dóor ko foo xamante ne nii ka nga koy dóor bu ko dal ah, dal yat bi su dalee ci kawam même bu méttee métti dina ko tenir parce que biir bi fees na dama ne encore une fois ku yeewu di dund au jour le jour da nga yeewu fajar 5 heures du matin nga julli daal di jël sa dàll sol ko daw uti 2000 yooyu yónnee ma madame mu taal añ pour jox xale yi kooku nga ne ko tey dootoo fi toog indiwoo ko fa dëgg la mën nga koo bañ a utal fu muy takk loolu yëpp ay réglement la ay droit la ay loi la ay lu mën a nekk mais feesul biiru kenn. boo ko fa indiwul tam si sa boo xalaatee na sa njaboot la bokk war na tax boo ko fay yëkkati nga ut foo ko jàppalee mm. dimbalee ko ko te yàlla rek tax nga xam ne loolu lañ la fi tegee gis nga ñun ay indiwuñu la fi ay loi ay réglement la dëgg la mais nag buñ la falee njiit c'est pour que nga jël en charge sénégalais yépp de de teg dans de très bonnes conditions loolu moo beaucoup boo mënul tamit li nga essentiel ñu mën koo am mooy ndékki añ reer seen biir la ca des ñu xaar yàlla loolu dëgg parce que qui dem ci mbedd mi di taxaw Kunek jaay ku nekk romb ko fa bu amoon lu neex du ko def day dem ci daal fay mm-hmm. amu ko ci la amaale ca loolu lay jàppale li nga te jàppalee ko ko rek muy dëgg nañ fa jógee dëgg la place yoon la dëgg la oto yee fay la du place mais utal foo dugal au moins ñu toog fa nëgandiku lépp luñ fa am muy ñaar dërëm muy ñetti dërëm su ko defee ñu am soo leen utalee fuñ ko dugal nag ñu yegg ne ñun tooguñu foofa bu boobaa gëmmal dóor kenn du la ci di génne mhm. waaye dañ fiy génnee tax tax dëkk bi il faut ñu defar ko faw ñu nekk ci dëgg dëgg la waaye boo ko defee xamal na yow sa mission wàcc nga ko mission bi mooy euh, fexe ba sénégalais yépp di lekk di ndekki di añ di reer suñu demee ba mënatuñu ko am bokk nga ci li leen ko xañ ndax fañ ko doon jëlee yaa leen fa jëlee te yóbbuloo leen dara kuy teggi dara da ngay teg dara boo tegee dara ba pare nag yóbbu leen fa su ko defee suñu demee bu ñu nanguwul toog gëmmal dóor li am barki démb Sandaga ñoo ngi koy fowee fi mu jëm du neex parce que gis nga wax yu sew yooyu du maire bii moo ko def du suñu maire maireu kii la maireu kii ak kële amul maire demantellement de l'État la même boo farul ak ñoom boo bokkul ci seen parti bu ñu diriger ñooy sa kilifa. Mm. loo bëgg def bu leen neexul tey décret génnee ko. donc kon ci sa parti la wax mo indi tay ba agent municipaux yu Dakar marchand ambulant yi di ak du fi dal té lolu moy yaangi jaxassé réew mi situation pour ñu mhm. donc à doy def que bravo merci parce que au moins y a quelqu'un qui est à côté toog ci rukkam jàpp ñàmburam bi wax dëgg jotee mu wax ko assumer ko. Mhm. il faut savoir assumer ses responsabilités Anna. Ah, il faut savoir assumer ses responsabilités Modou Kumba, euh, déguerpissement yi gis nañu li nga xamante ne nii moom la jur euh, fële ci euh, Dakar Plateau donc marchand ambulant et ak ñi nga xamante ne nii les agents municipaux di. xex xex bu metti bu dee ni mën naa ko tuddee noonu mhm. taxawaay bi ci maire bi am dem sax bay interpeller président de la république waaw euh, xam nga dafa am ay euh, ay situation yom Sénégal situation yi dafa avancé te li ko andi toujours masla comme sénégalais yi lu def masla Ni day ñëw rek sànni benn basangam fenn tek ay affaiream am parce que aussi amul fumu gis fu fu mu mën a marché bi ma gis Kaolack marché boobu bi may nekk xale bu ndaw di dox huit kilomètres dem ñu yónni ma ma jëndi ñëwaat marché boobu moo fa ba marché ah, central bi. mu amaat mu amaat beneen système de commercialisation bu ñëw teg ay Auchan ay yoo xam ne dafa ñëw mhm. am ñu muy jaay ñu muy jaay mooy ñi am tuuti léegi ki amul tuuti mënul dem foofu pour jaay fa mhm. parce que il faut mu am au minimum benn socle de capital bu mun a demee léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, dans le secteur ambulant ak dans le secteur peut-être mën nañ ko wooyee sax non aux règles mais am na ay ay sens de communication yo xamné dafa war ci ben peuple bo xamné yo xam nga len tay ben maire bu nek fofu mom xana nekkul woon politicien avant mu yegg si foofu nekk maire ñi ko fal moy ki fal ci woon ci mbedd bi président bi pareil mais il y a une chose bo xamné dañ koy négliger Sénégal moy communiquer ak ñom nañ wax ak ñom ne leen kat dañuy wut ay moyens yu leen dimbalé ci li ak li ne leen léegi yéen associé leen ngeen taxawal seen comité ñom tamit nañu organiser sen bir organiser wu am ben structure bu défendre ou ay kayit bo xamné suñu amé problème ñu am fuñ ko défendre am ay président am caisse am lépp ku ci am problème ñu taxaw la ci côté avocat ak lépp. Mhm. léegi tey loolu ñu jël ko taxawal ko. tay président bobu warna mëna taxaw tay xol ay solution yo xamné du nek brusquement ngay bofelo parce que déjà xam nga mentalité bi am Sénégal ci densité de communication. Mhm. gars yu meri frustration bi lépp am nga mais tay créer ben espace commencé à faire aménagement aménagements dans eh marché créer le lundi le mardi comme ni ko les marchés hebdomadaires buñ ko il y dina un sens de déguerpissement et de construction des autres marchés. parce que si local bi 4 gars def nañ la semaine où constat bi ñu def plan sécuritaire dina a tax statuer ko xam a aussi duñ ci perdre pour mais si vous doon for un fort 300 barres. donc c'était à prévoir quelque part ce sont les dirigeants et que les dirigeants n'ont qu'à voir des stratégies. Ils ont trouvé un point de revenu lolu moy ax man lolu la ci xam. Mhm. ay ci rapidement bu Camara nga addo ci lolu bala ñu yëkëti jotaay bi donc euh, décision bi nga xamantene ni euh, le maire wax nako ni euh, du reculer ben yoon ci mission bi nga xamantene ni déjà commencé nako interpeller les chefs de l'État pour que mu agir par rapport à cette situation. waaw man analyse politique la ci la ci la ci def ndax pour man la question dont ni

xam nga man. Casa euh, Saalum ak Casamance. waaw man fu ma neex. fu dëkk fu ma neex dëkk. fu ma neex doon dem doon buur. ndax umu. oloolu bi sax li ngay wax ni y' a pas de. waaw man fa la dëkk j'habite là a pas de faute. waaw man ñoo bokk ñoo bokk dëkk. waaw buñ ma génnewee biir Ziguinchor ma dem Adéane mbaa ma dem Sindone mbaa ma dem. Jembere euh, man fu ma dëkk fu ma dem dëkk. fu ma dem dëkk. <laughs> bu méttee sax ma arrière dem Bignona mbaa ma dem ay côté Kaparan ay ay Jaatang ah. côté yooyu. ma dem dëkk fa man man man je suis du <laughs> damay def xam nga analyse politique ma ci bëgg a def euh, parce que le fou village pour ne pas dire le fou heureux moom traitement politique la ko def.

bu waxee façon wax boobu c'est pour renverser euh, le problème sur les autres mm-hmm. sur les autres parce que loolu question politique la heureusement ba ñooñu xale yi nga xamante ñu fa ils ont compris le jeu ils ont commencé à comprendre en fait mm-hmm. le jeu du du du du du du village Alioune Ndoye li sortie bi amutoon solo circulaire bi génn na wàcc nga yaa ngi jëfee am na lu xew pourquoi nga rigide génn fofu c'est une réponse politique bi Ousmane demee bi mu yëngalee xamna na jëm ay élections ñu ngi ñëw mais lo rek a tax Ousmane reculer c'est Ousmane c'est quelqu'un qui recule pas sur mën ngaa gis Ousmane mu mu war bëgg def ben affaire nit ñi génn mu dem def jiko ko ba waxé jaaral corniche lay jaar ñu nako ko ngay jaar bañut taxaw samp bakkanam ñu nguufaan ko yóbbu ci yeneen ak yeneen c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. su doxale ni muy doxale les gens ñi nga xamne ne am na lecture politique dañ koy topo ci pa yoyu pour man sorti Alioune Ndoye bi du won dara pour une réponse politique dañuy dem jusqu'au bout jusqu'au bout lu muy jur lu muy jur moy yow mi nga xamante man amna app peut-être c'est c'est c'est en 2027 <laughs> yow mi préparer ay législatif anticipé yow ya am problème ak ñi nga xamanteni bëgg nga seen électorat Alioune wa marché Sandaga faluñu ko non mais si nañ na metti bokkoon ci ku muy metti moo tax ma ne la réponse politique rek la Alioune Ndoye def Alioune Ndoye waa Sandaga faluñ ko palaato ñoo ko fal ay léboog ay ñëfa dëkk la ay résident ay libanais ñooñu il travaille pour ces la là il travaille pas pour ñun ay Salim Salim ñu jógee ay Ndofane Kër ma Madiabel ñoo fii di jaay faruñ ko parce que bu élection jotee ñu tegal ñu ay kaar dugal ñu ci ñu dem vote ji mais pourtant mhm. ah, ci TikTok bi mhm. ñoom dañu jàppante ak élément Alioune yi

dafa ñii ñu génne ay jaasi. waaw kooku la ay mais attendez. Hmm. vidéo bi gudd na kooku la. comment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hmm. ba ne am na ci ñu dem hôpital vingt. si y en a des blessés graves. mais mais tu te rends compte léegi lan mooy problème bi. duñ fi duñ fi duñ leen fi yëkkati. non man dama jàpp ne man mi jóg dem di jaay. gàddu sama saak samay marchandise laa yóbbu. nga yore jaasi ñan ñoo am ba ñëw rax foofu ba war a créer incident bu toll. très bien à qui. moo tax ma ne la cette sortie. est politique à traiter politiquement. Mm-hmm. ndax bu dee euh, c'est d'ordre euh, hiérarchique de d'ordre euh, administratif. Mm-hmm. xëy na circulaire génn na wàcc na circulaire ba na tontu mooy sortie Alioune Ndoye bi c'est une. c'est une réponse mm-hmm. politique. d'accord mais tey taxawal taxawal ana ana te tu n'es pas en forme quoi. pourtant euh, waxtu bi. moo non tey da nga da nga sedd mais après jëlal garab yi mais non. bi <laughs> ana. wala xaalis bi ñu woomagul wala la. <laughs> eh mais boss yónneel moo leen bii. mais c'est quoi le problème ah. ana warul sedd nii quoi. Serigne Goundou. Serigne Goundou waaw Serigne Goundou sax mu recevoir la. wala Korom ak ana Korom ak la choisir. ah Korom ak la waaw waaw. kon Korom ak recevoir ko bokk na mu tane. duma ci boole wax de man de. wallaay du ma wax ci du ma tudduma koro mag tudduma sëriñ ngundu tudduma la fuudu waa léegi waxoo ma moom yow daal yaay tàggatool ñu ñu ñu yëkkati jotaay bi pourtant sama cop su su ma seedee dara war nañ ko jàpp war nañ ko mën a ko réfléchir damay bañ ko ma dugal rek. quand même ah waaw offense au premier ministre da koy daw tamit. non amul offense amul alors tàggatoo di waaw tàggatoo nuyu grand euh, vraiment di ko jaajëfal sama nijaay nuyu Fatim nuyu Anna nuyu euh, euh, suñu mbokk internet yi nga xamante ni chaque matin ñu ngi toog Diaspora News di ñu xaar di weesoog ñun ci ci ci ay xalaat mais mais balaa ñuy dem xanaa dañ dem tour dem nuyoo. xool gaay Faty ñu ngi fa rek euh, ñu ngi fi dañuy xuloo nag euh, yenn saa xam nga ñoom dañuy kontaan rek ànd ak yow mais yenn saay dañuy xuloo ah, dañ leen di rappeler juste que plateau la ah, ah, dañuy waxtaan ku nekk am na ci kàddu suñu amee loo xamante ne da ngay koy participer mën nga ko bind parce que ñoo ngi suivre dañuy tenir en compte mais ñu éviter des écarts de langage comme ay saaga et tout j'étais obligé de génne ay saaga donc yooyu noonu duñ koy bëgg ñun ñëpp on est une famille et ñëpp dañuy wax pour le bien du Sénégal donc ku am sa participation ci débat bi mën nga ko bind ñu tenir ci compte contradiction la mënuñ ko bañ on se confronte et tout confrontation et tout ça mais bu rafété mo gën ñaan baax mais man ay merci beaucoup en tout cas <laughs> les internautes de Diaspora News TV merci mm-hmm. beaucoup et grand merci vraiment parce que à chaque fois rek ñoo ngi présent comme ni ma tàggoo tàggoo bu yàgg. baal naa gërëm naa ñëpp bëgg a jaxase. yow ma jox nga tàggoo nga jox kii mu tàggoo. merci Anna merci beaucoup tonton Modou merci comme yow nii rek waxoon naa ne di nga balaa dara Anna bàyyi naa. Modou Coumba merci beaucoup ñu jaajëfal la bu baax a baax bàyyi la nga tàggoo c'est toujours un plaisir. Anna Anna ñu Anna ñu Anna ñu Anna ñu lay bëggee. ana ah, ñu lay affaire yi nice na neex na et puis voilà ni lañ mën a partager parce que sénégalais bu nekk am na benn xalaat boo xam ne moom la gis ci Sénégal moo xam lu baax la moo xam lu bon la fuñ ko mën a xamee rek mooy bi nga xam ne mooy réussir ñëpp jëriñoo ko. donc loolu la ñuy essayer te donc tey dinañ dem ba yegg foofu incha allah. moi je vous le promets ah hein. incha allah ça va aller incha allah. voilà yàlla ñu yàlla jàppale. Ah, jaajëf.

incontournable mënoo ci plateau bi dig euh, lundi euh, bon week-end. conviction fondamentale est que chaque individu où qu'il se trouve dans le monde mérite d'être traité avec dignité respect et équité les membres de Justice sans frontières considèrent que les droits de l'homme ne devraient pas être soumis aux frontières nationales ou aux intérêts politiques. Justice sans frontières opère dans le contexte d'un monde où les violations des droits de l'homme sont fréquentes et les inégalités persistent, que la justice et les droits de l'homme devraient être des